su ma ko mënul nag lu ma am jël lu ma am jël nag citoyen la ku jàpp sëñ Touba ngir bëgg yonant bi warees sama mën a jàpp ngir bëgg sëñ Touba foofu laa ne nag kon ku ku wax ci sëñ Touba dara te ma xam ko te nga ne ci réew mi danaa ca def sama kem kàttan waaye teewut dama am kilifa wacc sama kilifté waye nak daf ci am lo xamné sama pas-pasu bopp la hmm. bo xamné ne kenn momuko sama digg ak yalla la ko yant ak seigne touba hmm. bu dang mako wax nak man hmm. nga xamné ne óoma ci kumay may kuma du mom dana ko faj ci yoon bi ñuy faje yar ko ci yar ko ci ci yoon daal ba mëna fajj bu dul loolu nag ah ginnaaw mala mala la rek ah nga xam ne mala jikkoy mala ñëw na loolu mooy taalum réew hmm. waaw mala mooy ko xel ah, ndax maa ngi ko doon wax ci benn bis bu may wax ni walaw mu lil xorri muqimun raadihun wal habdu laa yardawu laa yardawu ilal hasa as gor dañ koy yedd mooy tax mu tegu ci yoon mën a jaar ci bunt bi bañ a bañ a yett miir bii nga xam ne amagul bunt dof mën na ko def gis bunt yi bëgg a jaar fee bunt yi sëñ Tuubaa kilifa yi indi mag ñi ci réew mi ñu ko bëgg a teg fee bëgg a wut beneen bunt buntu bentu nit rek lañ ñuy indil comme fu nit nite waaye nite nitay wax loola ñu topp ko ñun nag nit ki nu meññi nag ba noppi nuy der bu ñuul muy der bu ñuul yàlla yónni yonent bi ci noonu mu yemale ñépp kooka boo ko yeddee moom mën naa jaaraat ci bunt bi waaye hmm. wal habdu nag ab jaam hmm. dara jubbantiwu ko ndare dér rek jëlu yat ne ko dér rek hmm. loolu nag ñaar yooyu mooy si sama position ku ma tooñ moom man waxuma ku làqutuy tooñ de waaye allah kulli xaal defe naa buma bu fan da nga mi wala nu daje mm-hmm. dana ko faj lalu mom dana la yóbbu ci yoon mm-hmm. te yaakaar naa sisi siis senegal man mi nga xam ne defe na 40 44 ans yep maa ngi jaxasoo ki mastra gis bon musu ko ñi gën a mag mage ci réew mi ci magistrat yi miin nañ fii xamante nañ mhm. te ci dëgg rek laa doxe ak ñoom ndax man duma duma duma ku ñuy neexal man man dama koy wax ci rajo duma neexal ku yàlla bind mhm. noonu laa koy mën a wax duma ko ñuy weexal ndax ak sëriñ laa duma weexal ku yàlla bind mhm. ndax ku doyloo yàlla ku yont gëm gëm daal dama am gëm-gëm waaw gëm-gëm bi nga xam ne amuñu pas-pas sëñ Touba mais sëñ Touba pas-pas la demee ci géej gi pas-pas la dellu see loo dégg nit di ko critiquer xamut sëñ Touba ndax yàlla la la wàkkil mbiram. Mm-hmm. doyloo ko yàlla aar ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, yàlla bu fekkoon du kaaraangeem sëñ bi. ah mi buy ñëw. ndax nit ñi dañ koy seen. seenuñu ko ay weer sax buñ fi naan mu jël sinu ka man loolu nag mën naa aar nit ci géej ñiy dof dof lu di wax naan ay ndox ak yooyu lu ne la yàlla ma ne hmm. man mii mënul ndox moom boo ma yóbbu woon ca géej gi bee boo nga tàggoog man xam ne duutoo ma gisaat hmm. ah waaye nag coobare yàlla nag bu ko neexee nag du ma diig nag dëgg la bu ko soobee foofu la sëñ Touba demee hmm. man bu may wax sëñ Touba du ma ci waxe xar baax ndax gis ba tey saltige bi joxoñ asaman si yorub xeejam ak i ne ko tawal mu taw mhm. ah, loolu lu ko nek ci nekk hmm xana gëm yalla rek tax mu taw mhm. gaay yi itam top ko mhm. mu ngi melni ne ma ñaanal lu mu nangu dafa melne li tax duma ma weexlu bu wala ñaané mu nangu dafa yow sa pas pass mo ñoddi ñaan gi dama la doon jox nga nga man limalay jox rek yàlla arbitre nu jox la ko oh. nga jiñ ma ko loolu moo waral nag euh, pas-pas yooyu nu war cee góorgóorluwaat te war koo sàmmaat te wane na itam euh, loo xam ne dafa war a taal am réew mm. wala sax bu taalutum réew mu taal ko yi mm. nu bokk ndey ak bàyyi nun ñëpp mm. sëñ waxoon na ko morit ak tijaan ak xaarit ku xees ku ñuul ak ku xeere rekk la te booba ay mbir a taxoon buñ doxee noonu bañ a xeeb kenn mm-hmm. catholique bi sax buñ ko xeeb ndax ñëpp ci nit ñi ay catholique lañ woon mm-hmm. ah murid daanaka ñëpp ay tiijaan lañ woon mm-hmm. ah ak i xaadir ak i catholique ndax bi ko sëñ Tuubaa moom kese la waaw ko jëlee ko juruñu ko déedéet man mii euh, boo xamee ne du junj rekk la Boleh la ci waxe dar da nga na lanen par par par at do xam fan la catholique yi amna ci ay xarit amna ci ño xamne sa sama dom yi lañu wax ne ñooy ñooy seen sëriñ am ño xamne dañu wax ne may seen ah te xam nga amna lu dox sama digg ak ñoom mais ci man ciofel la chauffeur gi man na dem ba ba indi len fi lima ma bëgg hmm. ah? man ay catholique dañ may dañ xam nga jang bi day yebal ay nit ñi ñu ñu ñu hmm. man tok na uh, genn gone gu am ñen fu at wala fan at ñew sama fi ma ne ci Dakar di war dima hmm. <laughs> di pour bëgg ma dem ci yëf yi ree damay jàpp dama ko fonk muy waaraate benn bis nag magistrat bu mag ñëw fa premier président du ma tudd turam cour d'appel la woon bu mm. ndar mu ñëw mu ànd ak aal boo xam ne waaj a ko te man booba maa ngi jàng ci moom lii nit ñi wax nii mi ngi naan ma doomi sëñ diw sàngam doomi diw sàngam doomi nàngam nangam mu ngi ci église bi nangam nangam wax ay waxam mais mën naa ko toléré kookee nag nam def ba mënumaa jël képp ko am fayda njàngale man ñi nga dégluwaat kenn di jàngalewaat ca wet ga xamal ne seytaane rek moo ñëw nga muslu ko nañuy musuloo seytaane te te muñ tuuti nag rek bu dee coow rek la ñu coow loo dégg rek dal na coow loo mës a rek dal na waaw boo bañee ñaaw nag ci mbir dangay ngay xool démb hmm. suba ak démb xam nga démb jàll na démb suba ndekki nañu añ nañu reer nañu am nañu lu jaar ci noonu am nañu ci wér am ñu ci wéradi am ñu ci am xaalis am ñu ko ñàkk hmm. ngoon nga noonu